ak sungufu jaman la kenn du fa sol dal moo tax ma tontu ko di ko tooñ ni ko loolu kenn du ko jàngal koo xam ni Alaaji Abdu Kan a ko jur ndax Alaaji Abdu Kan mësul ñeme sol dal dëkk bu Seydil Hadj nekk mësu ko ñeme te ñépp seedeel nañ ko wilaayaam wante dëkk bu Seydil Hadj Malick nekk allah jabdu kan mosul ñeme sol fa dal mukk bu ko dee seeti Tiwaawan ma ngay summi dàll ya Cees laxas ba mu jekk mu def ci valisam tànki neen lay wàcce Tiwaawan mosul sol dal mukk mukk dëkk bu Seydi El nekk te ci li ma xam man ku ko ëpp cër ci yàlla gisuma ko ci senegal waaye ñemewul sol dàll fu El nekk yàlla xam na ko leetar ba sax daf ko mujj def way moom qaadi yónnee sima ko ci fan yooyu la gaañu tooñaale ma ca ni ma wóor na ma ne yaa ngi waaj pour seeti ko te daf ma doon tooñ rekk parce que woy jur yi ma amoon yëpp ñu di ma jàngal seen seen seen xam ma nu ko wolof yi wax seen doomu bàjjen laa dañ ma daan tooñ tabarkalla ma di leen tooñ wax naa leen ci njëlbeen gi ni Serigne Cheybatu moo ma tere woon dem cinéma yàlla xam na ko ni bu ma demati cinéma bul demati cinéma dem naa ba ca député bi wax ko ko monsieur Samb ni ko na tere bul demati cinéma ma ni ko kon dootuma jàng suwaraawu sit mu ni ma lu tax ma ni ko ñoo yem bii dafay mbind rek bii di image ma ni ko benn la mu ni ma aha ma ni ko waaw xam nga ni li Umar Qaysi di wax li ci écran bee ko gën a jëkk ñu waxtaane ko ma ni ko te dégg naa ne am na bés nga dem ca làmb ji mu ni ma dugguma ca biir ca gannaaw laa taxaw yàlla xam na ko mu ni te la ma fa yóbbu mooy sa maam xaadi yu ma jaxate kala dafa mas seetaani làmb waaye moom it duggul ca biir jëggannaaw la taxaw ñu laaj ko loo fa doon wuti mu ni yéen ma fal xaadi te xaadi yi war na groupe dam yépp mu xam lu leen yàlla nattoo tabarkalla tabarkalla sama mbokki bop yi ah dañu ñew fi waye dañuy dem fenen tabarkalla tabarkalla mu melna rek mom ku def ñaari pa ñetti pa ñew fi rek ngir yalla ak yonenti bi waye bo yakari yiw ne yàlla defal nuyu yiw moo tax nag ñu xaw jaaxle ma ni leen xaad yi ma jaxate kala fa mu ko jële dafa sore mu ngi ko jële ci imam Ghazali xujjatul islam imam Ghazali nee na groupe yi nit ñi ragal ñépp ni nit bakkaar lañu ku ci ne milité na ci sa biir pour xam yàlla li mu def la ah imaam Ghazali moo ko wax moo tax gaaw a xaste baaxul waaye nag itam mesure mesure ndax li mbokk mi wax ci affaire anniversaire su yeboo rekk dal ci tuuti ndax man sama anniversaire bu dikkee dootuma xaj sax ci kër gi tabarkàlla nit ñi dañuy ñëw di ma ndokkeel te duma leen ko tere duma leen ko tere ndax Maodo tax ndax moom déggam dafa sore te lépp loo xam ne lu xaraam nekku ca rekk toléré na ko lépp loo xam ni lu xaraam nekku ca te jamono imposé ko nit ñi toléré na ko lu mat a bàyyi xel koy wax na ko fu nekk nee na naxanteel ak jamono nee na bu ko defee nga am jàmm ne boo naxantewul ak jamono doo am jàmm waaye waxuñu nga def fa xaram waaye naxante rek moom ci yu sew yooyu mënul ñàkk waaw moo tax jarul jaaxle nag ndax kenn ku nekk ak déggam jarul jaaxle nag kenn ku nekk ak déggam jarul jaaxle waaw te dafa am fu mu ko teg ci waxu yonent bi da ko teg laa tasubbu dahra fa inna allaha huwa dahr waaw mbiram mbiram lu yéeme la ci wàllu googu la taxtarru la taxtarru la li mu ci daan wax kenn xamul na mu toll daan na wax ni wattandiku leen taxi kese kese na ngeen wut ku leen di guider ci taxi su ngeen ko deful rekk xuloo du fi jóg saagante du fi jóg moom kay li mat a wattu mooy li yàlla tuddal boppam ni baaxul waaw sëñ Babacar si tubaab yi dañ ko ni dañu la bëgg a organiser tournée ndax xale yaa ngi commencé di naan sàngara ñu bëgg organiser la tournée nga tere ko mu ne am na lu gën a gaaw loolu ñu ni ko lan la mu ne bu leen ko fi indeeti bu leen ko fi Maodo tubaab yi mës nañ ko wax ni ko baykat yi bu ñu jaayee seen gerte rekk lekk ko yàqu ko dañ lay organiser nga yedd leen ci mu ni bala ma leen a mën a yedd mata ngeen ko jënd njëgam ba noppi yéen jëndewu leen ko njëgam te bëgg ñu yedd leen loolu fu ko nit teg te looluy dëgg looy dëgg ku sonn ci nit ñi wara a la moom Sidil Hadj Malick moo tax bi Sëriñ Babacar di laata dem ma ni ko am na loonu may lu rëy la mooy Maodo la nu gën a miin ci yow waaw te fekke nu dundam waaye moom lanu gën a miin ci yow kon nag ci yow la waaw maa ko ko wax ma ko bi ko ñaareel mooy mësunu la bett mu ko ngay xuloog jigéen ji te bés bu ne ngeen xuloo waaye organiser ngeen ba nun fekke wunu ko seetal loolu organiser ba sa doom du fekk sa xuloo ak sa soxna parce que dañu wax ni doom bu fekkee ñetti yoon xuloo way juram rek gàllaajam dafa toj baaxul waxtaan da ngeen di organiser ba bu ngeen bëggee xuloo bu ko kenn fekke waaw tax mu daan wax la taxtarru la taxtarru bi zawahiri man loolu ku ko gëm la daan naa jàng ci moom it ba àgg ci benn bunt mu ni ma tëbal bunt bi parce que amatul njariñ léegi boo ko jàngee doo ko mën a appliquer yàlla xam na ko waaye du tee man dinaa ko jàngale waaw yàlla xam na ko te teguma ko fenn nag waaw moo tax Sidil Hadj Malick kenn xamul lu mu doon ci nit kenn xamu ko façon bu dégginam dégg sëriñ Aline def ko ne xanaa jàng nga lu ne mënu ko mukk tuuti laa jàng waaye dégg naa ci lu bare loolu rek moo am solo jàng lu tuuti dégg ci lu bare waaw am na ñaari baat yoo xam ne mat nañu téere moo gën nga jàng téere bi yépp te doo dégg ñaari baat yi loolu dafa am am na ñoo xam ne dañ la naan jàng naa téere yépp ma ne waaye dégguloo ci dara waaw loolu dafay am loolu dafay am ba ko nit ka waxee ca Ndar ca ma ni ko li nga wax ak li ci téere bi bokkul mu ni ko li borom téere bi dafa juum waaw mu ni ko xanaa tafsirul Jalalayn ni nga amee mu ni ko waaw mu ko boroom dafa juum waaw seetal loolu sëriñ Aliou nee na moonu jàngal ni bu leen defe ni téere bu jóge màkk rek wax na dëgg erreur gënu ko garaw waaw bu leen defe ni téere bu fi jóge màkka ñëw fii rekk wax na dëgg